mel ni tey nga dóor sa doom ne bañ mu jooy. kuréel gi ñu duppee aar sunu élection daal di taxaw temm ngir président de la république Macky Sall li mu bëgg mu bañ fee am ñoom nag naqar lañ daal di am gannaaw ba ñu fësalee ndi jongante yi dañ ko daal di dàq. warul mun a nekk reporter élection du lu ñuy nangu tey jii ñun ñëpp benn choc la ñu dund samedi choc la bu rëy ci ñun choc la parce que euh, dafa nekk lu ñu bett. te metti ñu lu mosul am. boobu leen lël nag duñu doon ñoom képp ndaxte dañoo am jàppandal ci ñi nga xamante nag fépp la ñu bàyyeekoo ci àdduna bi jàpp nañu bile xeex ngir taarixu Sénégal la. dinañ ko jooy fépp dinañ ko jooy ci nii ak ci nële et moo tax àjjuma suba dañuy wax ne dañuy solu weex àndax ak drapeau national yi euh, ba pare wax imaam yi ñu wax ci seeni xutba ak président Macky am na marche bu ñuy organiser mardi am na également débrayage bu ñu syndicat yi euh, euh, na ma def pour que effectivement le président Macky xam ne mandat mi jeex na na dem ci jàmm bu ñu bàyyee li mel daal di jàll dina tax euh, sunu démocratie gën a nërmeelu. li ni mel porox ndoll la te bu ñu moyul beneen président mën na see sukkandiku jaaral ko ci ay député ngir coppi li nga xamante ni moom mooy suñu constitution. bile kuréel nag ndaxam dinañ def li fi ñoom m ak Y'en a marre defoon maanaam daal di taxaw temm ci kanamu maître Abdoulaye wadd ne li mu bëggoon 2011 du fi am lu ci mënti ne ña fa nekk gëm nañ li ni mel.